alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waa istuwaaru tamxarit mu ngi jóge ci gannaaw bi yàlla yónnee yonti yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam mu commencé di woote ci lislaam def fukki at ak ñett ci màkk jóge fi gàddaay dem madina bi mu demee madina mu fekk fa ñi ñuy tuddee yahuud yi mooy juif yi ñuy woor bésu fukkeel ci weeru tamxarit mu laaj leen lu tax ngeen di ko woor mu ñu ni ko ci la yàlla mayoon ndam yonti yàlla Muusa ci Firawna ci la Firawna laboon bés boobu ñu di ko woor saa yu dellusee ngir santee ko yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa ni leen man maa leen gën a yey ci Muusa mu di ko woor digal jullit ñu di ko woor loolu mooy eh, cosaan li ci lu tax ñuy woor tamxarit tamxarit comme ni nga ko waxee dafa am benn particularité ci islam boobu mais dañu gis ne ni nga koy defee ak l'islam nañ koy defee daa mel ne dafa wuute lu waral loolu waaw euh, niñ koy defee ndax su paasee ndigalee koor googu daanaka amul beneen digle boo xamante ni jóge na ci charia bu ñu boo xamante ni l'islam moom moo koy diglee ndaxam moos euh, ñaari euh, écoles yi ñu tuddee école ahlul bayt yi xamante ne ñu mu gën a siiwee ci chia wala chiite ñoom su bés boobu dellusee dañuy gis ni si lañu ñu royee woon xuseynu di sëtu yonent bi di doomu Fatima ñu ni bés boobu si la ñu tuuroon deret ji gënoon a jegeñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom su dellusee dañ koy naqarlu def ko bisub dëj di dagg seen yaram di jël ay weñ yu ñaw di jam seen yaram di jël ay paaka di gor ba ci xale yu ndaw yi nga xam ne ay perantal la sax dañ leen dagg seen bopp dagg seen yaram ndax laan bés la boo xamante ni ñoom dañ jàpp ni bésu dëj la loolu lislaam diglewul noonu loolu moom bokkul sharia su ko defee loolu bi mu demee ba mu yàgg ba yàgg dafa amaat beneen école bi nga xam ne ñoom la tudde ahlu sunna wal jamaa ñoom dañoo jàpp ne bés bii du bésub dëj léegi comme ñoom am nañu ay wuute ak ñooñu ñoom itam ñu def ci leneen loo xamante ne lislaam recommandé wu leen ko ndax deretu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñuy tudde ahlu sunna wal jamaa xam ne ñoo gën a ñooy ci li mooy ci li gën a leer ci lislaam ñoom dara waru leen a gën a metti lu dal njabootu yonent bi waaye ñoom itam ñu jàdda la leen lislaam digal ñu ni kon ñun comme ñee dañ ko def bisub naqar ñun nañ ko def bisub mbégte di ci togg di ko def bisub feet di ko def bisub xumbeen loola nag ñaar yooyu yëpp lislaam recommandé wu ko bu ñu xoolee fii ci senegal dafa am ñoom ñu koy dundee mhm. maanaam boo xoolee wàllum taajaboon mhm. jigéen ñi sol yëre góor góor ñi sol yëre jigéen te dañuy fàttali ci benn xadis yi ne salaa salaam dana wax ne laana allahu almutasabihina bin nisaai min arrijal wal mutasabihati bin góor ñuy nuru nululu jigéen ak jigéen ñuy nuru nululu góor mais bu xoolee Sénégal mhm. jigéen ñi ñoom noonu la ñuy def ci jouru tamxarit est-ce que loolu l'islam reconnaître na ko waa l'islam recommandé ndax xadis bi nga junj sànq laana almutasabihina min arrijali bin nisaai wal mutashabbihaati minan ibir bir rijaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yàlla rëbb na ñii niru niru ci góor ñi ay jigéen waaye niru ñii niru niruloo ay góor ci jigéen ñi tam yàlla rëbb na leen te rëbbum yàlla nag mooy yàlla sori la yërmande loolu si pour mu leer ci bopp képp kuy dégg lan mooy rëbbum yàlla mooy bés bi nga xam ne yowmal xiyaam kenn du fa soxla lu dul yërmande yàlla nga ñëw fa ñuy joxee yërmande ja yàlla dàqale ne la jógal fi bokk si ñu jox yërmande kon loolu day tekki ni eh, bés bi du bésu feet du bésu naqar waaye warul nekk loo xamante ne dafay jur tam yàlla la ci yërmandeem